بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغني بوكي في تاريب waxtaan kon ci نغني جفلن lay قصيدة nu nuy jëflanteeg yi mu tudd rek mooy tomb yi nu ci bëgg a waxtaan tomb bi ci njëkk mooy lan mooy xasida yi lan mooy xasida xasida wolof xasida lay wax xasida la ko jële bu arab ci arab li wax aw way wax dañ way mooy sa muy muy safaanu lu ñu wesal lu ñu wesal mooy lu ñu wayut cosaanu baat ci arab moom loolu fi xasida bu ñu ko waxee rek kon mooy wax joo xam ne nit da koo wax taway ko ci maanaam moom nga xam ne mooy maanaam baat bi ci arab dëgg-dëgg bu ñu ko ci jëfandikoo kon lépp loo xam ne sëñ bi wax na ko te muy waaye rek da ciy dugg ak ci wàllu gu mën di jëm waaye nit ñi kon loolu mooy maanaam dëgg-dëgg waaye nit ñi moom ci seeni wax ñoom dafa mel ni am na maanaam buñ ko jox mu gën a xat mu gën a xat loolu maanaam moo xam ne am wut am wut maanaam mi ko arab jox mi dafa mel na ci murit yi lu ci bari ñoom buñ naan xasiida am na yoo xam ne sëñ bi da koo way waaye ñoom duñ ko ca limaale Masaalikul Jinaan ñu bari buñ ne xasiida duñ ko ci limaale tasadu saraat tasadu shubaan naaju yooyu duñ ko ci limaale kon nit ñi ci seen waxin ñoom xasiida mooy yi nga xam ne nit ñi dañ koy faral di jàngale mu jëm ci yeneen wàll yu bokkut ak jàngale yi jëmul ci jàngale la nit ñi di gën a tudde ñoom xasida waaye dëgg-dëgg nag xasida lépp la lépp la am wàll bu mën di jëm ginnaaw waay la rek kon xasida la eh, loolu kon mooy maanaam xasida maanaam dëgg-dëgg ak maanaam mi ko ñu war ci nit ñi di jox xasida yi nag yu sëñ bi nan la toll nan la toll la toll moom ma su ko wax ma su ko wax murit bu yàgg daan nañu wax loo xam dañ ko daan wax noonu rek man naa am na fu mu jóge am na jamono dañ daan wax naan juróom-ñaar ton ak genn wàll la li sëñ bi bind moom la sept tonnes cinq cent dañ ko daan wax lu yàgg loolu nag xaw ma fu jóge xaw ma fu jóge mën naa am ci xalaat nii rek mën naa am mën naa am wóoruma mën naa am bi sëñ bi ñëw jóge Gabon mën naa am ay bagage am doonoon nit ñi jóge foofu far daal ne mooy ay téere wala am waaye moom foogu ma ne am na cosaan lu wér kon ni mu toll moom neexut a wax xam daal mooy bari lool lool lool lool bariwaay àgg na ci nit sax danaan ndax nan la yoroon maanaa sax ak nit di def loolu mu xaj ci dundu nit maanaam nan la mën a xaje ci dundu nit bari waaye duñ bari kenn mënut a wax nag ñi mas bind ñëpp xam na lañ bind nam toll ba mën a tëkkale waaye xam naa ne gën ku ëpp ko ëpp ko ku ko ëpp lu mbind moom xam naa du yow bu fekkee ëpp sëñ bi sëñ bu mag bi lu mu bu fekkee am naa xam naa doyam kon ci wàllu dayo bi nan la toll foog naa loolu rek lañ ci mën a jàpp mooy daal àgg na ci bariwaay boo xam ne dañ naan sax nan la mën a xaje li dundu nit nan la ko nit may koo mu doon jeneen sax duñu bindee kese kese rek ndax mën naa bind lu noonu xamne nañ nag ne am ci xarba baax ci xamne nañ ne am ci lepp way amna ci xarba nak lu mu dugg rek mom man na tax mu ak fo xamne nit nit du ko mën nak loolu moy xarba moy mooy lu wuuteeg baax baax moy li miin li miin moy li faral di am wuuteeg loolu kon mom du am duñ ko mën tanki qasida yi ci yan wàll la jëm yan wal wàll yi manes na cee tudd juróom benn wàll yoo xam ne xasida yi jëm na ci li sëñ bi bind damuy woy am na ci lool ci jàngale la jëm jàngale da ci jàngale téere la yii ay ndénkaan la yii ay tontu kon li jëm ci njàngale am na ci lu doon yi téere am ci lu doon ay dénkaan am ci lu doon tontu tey daal duñ ko laaj mu tontu def ko way geneen wàll bu xaside yi jëmit mooy ñaanal yonente bi sallallahu alayhi ak tagg ko ñaanal ko moom lañ naan julli ci moom ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg ko moom itam ak wàllu rek boobu sëñ yi ci lu bari te def ko way te lu bari ci xaside yi jëm na foofu nit sax mën naa xalaat ni boo tuut daanaka mën naa ca daal na ci lool am na it ñaan la xasida yooyu ñaan la sëñ da ci ñaan ñaan ci biir ñaan ci la jéggulu dugg itam wax dëgg jéggulu tam ñaan la ñaan ñu jéggal la kon moom itam ci biir ñaan lay dugg am na ci it loo xam ne moom lañ naan déeyaale déeyaale ak yàlla la déeyaale ak mooy wax moom rek wax joo xam ne seen diggante la wax du jëme ci yàlla muy seen diggante ak sant bu muy sant yàlla ci ay may yu ko may loolu dama am na ak wàll la ci xasiida yi yooyu dañuy faral di ànd fu muy wax lam ko may fa lay koy sante itam bokk na ci it yoo xam ne moom da cay won ko yàlla may li ñuy tudde ak taxaddusu di niam mooy di di wax xéewal yi yàlla defal loolu tam xeetu cant la xeetu cant la wàllu juróom-benneel gi mooy nag xeex ak noon yi jaar jaar ak noon yi xam na xasida yooyu da ci doon xeex ak noon yi xeet la woon ay day mel ne ay bal la woon yu mu doon jëmee noonu ba am na fu mu waxee sax bu bàyyi wutoon kon ñëpp yàlla da leen di àll moom kon mooy am na ci yooyu jaar la mooy xeex la da doon xeex ak noonu yooyu kon ay wàll la yoo ne xasida jëm na ci bu dee nag solos solos xasida yi sam solo la am bokk na ci luy wane soloom sëñ bi ay xasidaam muy am mbindam te mbindam xasidaam ci la dugg ak mbindam moo gën a yaatu xasida yépp kon dugg ci ndax lépp ci mbindam la kon xasida yi bu alquran jàllee xadis jàll ñooy li yàlla gën a bëgg yonent bi gën ko bëgg li nit ñi wax kon wax daal ginnaaw yonent bi xasida yi ak mbindum sëñ bi ci boppam rek mooy li gënal yàlla gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tam sëñ bi wax ne yonent bi moo ko loolu moo ne ko sa bind mii moo ma gënal man gënal moom leneen lu dul alquran ak xadis leneen alquran ak sa mbind mii moo ko gënal yàlla moo ko gënal man itam loolu kon day wane solo su am di wane itam gëneel lu am bokk na ci solo it yu bi yàlla da ci fajey aajo loolu si mbir wax moo wax ne boo boo jàng xasiida ci sama xasiida yi nang ci yéene lu la soob mooy la bëgg lu la neex loo bëgg bu soob yàlla danga ko am daal ne nag euh, loolu ay jamono ay jamono waaye ko am na ci ginnaaw ba mu koy wax moom dane woon na fekk mu doon xaside yi jiitu xaside yi nga xam ne ginnaaw bi mu jógee Mbàkke Baari la ginnaaw bi mu jógee Mbàkke Baari walla at moomu daal li ma ci def mooy di tàmbalee jëy session rek di tàmbalee jëy session daal bu dee ci yooyu la loolu ci yeneen dañ ko jàmm da ko jiitu nag moom bokku ci loolu ay jamono la ko waxoon ay jamono na ko waxoon am na ñoo xam ne dañoo taxaw foofu rek jamono ko foofu jàpp na noonu dañu waaye ginnaaw bi war na nga ne bind lépp lépp lépp lépp am nañu àtte boobu kon mooy day doon lu yàlla di fajee ay aajo kon ki koy jàng am aajo bu sellalee te yéene ca faju aajo yàlla mën na faj Serigne Cheikh Sarr am nañu ko xam ci xam naa doomi sëñ Bay Sarr la doonoon ku yittewoo woon di nettali lim daan dégg ci sëñ bi doon na nettali ne sëñ bi wax na lu mel noonu wax na ne li ñuy tuddee euh, jañ xëcc ak jañ xëcc mooy xëcc njariñ jañ mooy jañ lor nee na sëñ bi neewoon na ko def na ko ci xasiide mooy kon mën naa xëccal nit njëriñ lu mu bëgg mën na koo jañe jañe itam lor mu bëgg a mucc bokk na ci li wane solo it sëñ bi waxoon na ci Masaalikul Jinaan ne ku dem ba amul sëriñ bu mat sëriñ na jàpp ci li nga xam ne ñu baax ni moom lañ fi bàyyi woon ci seeni bind seeni wax moom nag mu wax ne mbindam moom it bokk na ci loolu bokk na ci li mën a defar nit ki amul sëriñ bu ko mën a defar am mbindam mën na koo defar fii moom day ñaan fii nag day wax ne am na fi muy wax ne wajaal tawaali fii misla murshidi وبدني صحيح وقلبي علمي وبنيا كنت مقسم التعريف مسلم بندر نكودف مملنا سرين بويا نكودف مملنا سرين بويا waay fene mom da wax ne yalla def na lool hadayta bi aqdi wa tasawufi wa عيالي صلاتي مع سلامي وبالمدح mu ne yàlla yow jubal nga sama sama ñoñ sama njaboot jubal nga len gindi nga len li nga len gindee rek moy lii may sama gindi mi nga xam amna ci lu jëm ci pas-pas mi tawhid am ci lu jëm ci tasawuf am ci lu jëm ci fiqh am ci lu jëm ci ñaanal yonent bi sallallahu alayhi am ci lu jëm ci tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa soo bind moom nga xam ne jëm na ci wàllu ci nit ci nit ñi yooyu kon bokk na ci wane solo si nga xam ne xasida am bu alxuraan ak sunna jàllee alxuraan ak xadis bu jàllee moo gën a jàll ci wax yàlla da ci faje aajo mën naa taxaw taxawaay yi doon sëriñ koo xam ne amul sëriñ bu ko mën bu ko mën defar xaside yi mën nañoo wutu ab sëriñ bu dee nag nu ngi jëflante ak xaside te mooy dëgg-dëgg yi waxtaan dañuy seet yuñ jàpp ne ay warugar la suñ diggante ak yi taxawaay yooyu war nañ koo taxaw suñu diggante ak xasida la ca njëkk mooy segg ko segg ko ba xam ba xam la wér ne ci sëñ bee ko def cest à mooy xam ne lii mooy xasida sëñ bi wala lii ay xasidaam lañ ndax man nañoo moo war a sëñ bi xasida ko moom kon bala ngaa def lenn da ngay jëkk xam si dëgg-dëgg yan ñooy xasida loolu nag ak segg ak segg lañ koy mën a def mooy kon segg ba xam ne yii ñooy xasida loola loolu man nga ko def ci loo xam ne du xasida da nga jàpp ne xasida ko fekk bokkut kon la war a jiitu mooy settantal ak gëstu ba xàmmee ba xam ba xam li bokk ci xasidaam ak li ci bokk buñ xamee la ca bokk la ca bokk nag nu bind ko te mbind ma itam nu wéral ko mooy bind ko na mu nekkee loolu tam warugar naan njëkk a gëstu ba xam ne yii ñooy xasida yi yañ xam ne ñooy xasida itam nañ ko bind mbindin woo wér mooy ñaareel boobaa daan nañ am kon xasida yi te am nañ ko ci anam gu wér xasida yi ñu ko waxee ay wàll yu wuute la jëm wàll yi ci jàngale xasida yi jàngale ñu di ko jàng loolu tam loolu war na war nanu ñuy jàng xasida sëñ bi muy jàngale loolu bu ginnaaw ba xam ne yi ñu xasida yi ba wéral ko jajee jàngale dañ ko war a jàng tam na ndax loolaa tax mu mu taalif ko te ko taalif ngir ñu ko jàng ngir ñi di ko jàng di ci mën a xamee seen diine di ci mën a xamee nu ñuy jaamoo yàlla moom dañ koy jàng kon ngir iya, ngir iya, xam ko dégg xasida iya, yi ci des moom su di ko jàng jàng nii jàng nii rek moom li ñuy wax durus durus leen ñuy tuddalee ko durus mooy di jàng xasida ngeen ku xam maanaaya ku ko xamul ku xam maanaaya ak ku ko xamul ndax ay jaamu yàlla lay doon koy jàng da cee jaa tey mi ngi jaamu yàlla bu ñu koy jàng ndax bu dee ñaan ñaan ak jaamu yàlla la bu dee ñaanal yonente bi ak jaamu yàlla la te xasida génnuñu loolu daanaka ak ay tudd yàlla ak yoon noonu rek moo ne ci xasida yi kon ki munta ki munta xam maanaam it da koy jàng su ko mën a xam di ko jàng di dañ muy tëral li ñoom tëral di ko jàng ngir xam la ca nekk ngir jëfe ko nag lu ñu war a jëfee bu dee yii nag dañ koy jàng moom ngir jaamoo ko yàlla ndax ay ñaan la ak ñaanal yonent bi sallallahu alayhi ak yu mel noonu ay tudd yàlla ak euh, tàgg yàlla ak yu mel noonu yooyu dañ ko jàng ngir ko yàlla leneen tam lu nu lu nu ci mën a def mooy di ko yëkkati li ñuy yëkkati yëkkati ndax da ko daan def da ko daan def lu itam moom suñu coob da daan yëkkati ay xasidaam da ko daan def lu itam kon loolu lu war a def la itam kon xasida yi kon juróom ngi noonu yoo xam ne war na suñu digg xasida yi gëstu ko segg ko ba xam yu wér ne mooy xasida yi ndax am na luñ ci limaale lu ci bokkut loolu nag segg ak gëstu mooy tax ñu mën koo xàmmee yañ xam ne moom la ba noppi itam ñu bind ko te wéral ko loolu it xaw nañ ko sàggan dañuy bind rek ñi ñiy binde ko mool daanaka ñoom dañ ci wut xaalis rek dañ ci wut xaalis rek jëpp xaalis lañ ci rek ba tax dañuy bind rek di mool di tasaare waaye wéral giim di ca war du ca am dañ ko waroon di wéral di jàng yi nga xam ne day jàngale di ko jàng ngir dégg ko ngir jëfe ko di jàng yi ci des di ko durus di ko yëkkati yëkkati gi nag moom ak lépp sax waaye yëkkati gi da raw moom am na ay yuñ ci war a sàmmanteel am na yuñ ci war a sàmmanteel ci ci jàng jàng ko njàng mépp la war a am lu war a sàmmante moo xam ku yëkkati moo xam ku yëkkati wut waaye fi yëkkati nag da cee raw moom liñ ci war a sàmmante rawat na ci ñi yëkkati buñ ko yëkkati la ca jiitu mooy sellal yéene sellal yéene sellal yéene mooy di ko def ngir yàlla di ca séentu fu yàlla ak ngërëmul yàlla te bañ koy def ngir loo cay jëlee ak loo cay amee loolu nag xam naa jafe na ci ku ko def liggéey ba noppi ñu ko def liggéey ba noppi dañ ne la nag bu ko def ngir lañ cee am waaye naa nekk mën naa nekk mën naa nekk am na jànkat moo si dégg moom muy wax lu mel noonu ne moom noonu lay doxee neen du laaj kenn dara du laaj kenn dara te du jànge xasida yi foofu fudul fu mu xam ne ña fa nekk yitteel na leen yitteel na leen yitteel na leen di ko déglu du ci laaj kenn dara waaye nee na teewut yàlla ko ci suturaal suturaal mooy laajut waaye mi ngi ciy amee laajut kenn dara waaye mi ngi ciy dara xëy na gi mooy tax nit ñi itam di ko di ko yéene di ko jox ca la ñu am ñoom itam waaye du laaj te du ko defee foo xam ne dañ koy motalee seenu jotaay wala yooyu rek waaye sax duñ ci bàyyi xel ñi nga nekk ci yeneen ñu ko jox yitte rek foofu leen fa la koy jàngi noonu foog naa danga ko jëfoon na ci yàlla kon sellal yére ji moo ci jiitu la ca topp mooy di ko tudd tuddiin wu wér di ko tudd tuddiin wu wér kuy jàng ku ne loo jàng lu mat doon da nga ko war a tuddan wér tuddan tuddiin wu wér loolu lañ bind ci wolof boobu koy wax da nga ko war a tudd ni ko wolof di tudde luñ bind ci arab boobu koy wax da nga ko war a tudde ni ko arab di tudde di ko tudd tuddin wër waaye da caa rawati nag boo koy yëkkati di ko dégtal ñeneen bu dee sa digganteeg sa bopp rek loo mën di yàq tam sa digganteeg sa digganteeg sa bopp la yàlla mënul ko jéggal yàqaloo keneen loroo keneen waaye boo ko yëkkatee nag boo yàqee moom da ngay yàqal keneen di lor keneen moo tax ki yëkkati moom moo war a gën a xéer ci di wér li ñuy njàng di wér di wér leneen lu ñu war a bàyyi xel ci ku yëkkati it mooy baatam neex baatam neex kenn tam warut a forcer nit ñi di leen digtal baat bu neexul koo xam ne bëgg naa jàng waaye baatam neexul na jàngal boppam na jàngal boppam na durus waaye yëkkati moom ku baatam neex moo ko war a def leneen tam lu ñu ci war a bàyyi xel ci yëkkati gi mooy bañ cee boole leneen booy ci jàng xasida ba noppi di ci dugal leneen lu dul bokk ca xasida yooyu di wax di tudd am diw wala yu mel noonu wala sax di xëcc xëcc yu ci bokkut ak lu ci bokkut la ñett yooyu nag wér mu wér te te lu ci bokkul bañ caa ànd ñett yooyu yëpp sëñ Cheikh Sarr ñoo doon wax léegi moom sëñ Bay Saar nettali na li ci sëñ bi xëyee woon saaba bi dañuy jàng nañ ci nañ ci nañ ciy def seen yitte ñuy wër tey neex tey lu ci bokkul bañ ca ànd am na itam lu ma dégg koo xam ne ab jàngkat la woon foog na sëñ jabeel soow lañ koy wax am ñàkk koo koo ku ma sa dégg jamono sëñ bi du woon mag lool waaye nekkoon na fa nekkandoo ak ñi fay jàng ñi jàng di yëkkati bis moom mooy nekk ni mu ne bis sëñ bi dane nañ ma woowal ñeeño yi ndax daan jàng jëpp ñu wax ma nag ñu wax moom sama xaside liñ ci dugal fu ñu ko jële xëcc yooyu ñu xëcc salli ala muhammad ak ñu noonu biñ ñëwee mu laaj leen loolu laa bëgg ngeen wax fu mu jógee fu ngeen ko jëlee te ngeen ko bàyyi diw la wax foog na bàyyi diw géej moo ko ne ah mbàkke dafa mu dañuy dañuy safar ko dañuy xoromal ko yu noonu daal sëñ bi ne ko aajowut yooyu yëpp lam ci aajowut lépp am na ko ba noppi bu dee xorom ak suukar ak safak lu mën doon lam cooram am na ko ba kon lu ngeen ci yokkaat rek dañ ko yàq waaye li war a am lépp am na ko ba noppi kon jàng na yow rek ci li sëñ bi bind bañ xëcc xëcc yu ca bokkul bañ caa dugal yeneen baat yu te sëñ Cheikh Sarr li mu doon nettalee ci ñett yooyu mu ne bi daa bëggoon ñuy jàng di ci bàyyi xel wér gi ak neex gi ak bañ cee boole leneen foog naa tuddaale na ci malaaka ne ne yooyu day lor malaaka yi malaaka yi nga xam bu ñu jàng dañ koy fekke di ko déglu yooyu da leen di lor yàq yi da leen di lor baatu naqar da leen di lor li ñu boole ñu bokk da leen di lor yooyu yëpp kon kuy jàng war na cee war na cee bàyyi xel jàngkat nag ñu ci bari dañuy jiital dañu jiital daaj ab daaj daaj bi mbind mi koy fekk si ñoom dañu am seen daaj ba noppi di jànge mbind mi nag ñu dëppook daaj bi bu laajee ñu xëcc lu ñu war a xëcc ñu xëcc ko ndax daaj bi moo leen jiital ci lañ topp mbind mi nag dañu war a topp mbind mi dañu war a wut daaj bu tolloog moom daaj bu mën a tolloog mbind mi wax ci sëñ bi wax dañoo war a wut daaj bu mën a tolloog li sëñ bi wax waaye war ñoo sàkku daaj ba noppi nag di xëcc waxu sëñ bi ngeen mu toll si la ñuy def mooy si ñëw te xëcc sëñ bu mag sëñ ma sàmba xam nañ ne sëñ bi da ko dénkoon wàllu njàngum yëkkati nii mu daan taxawu ñu ko daan def di leen taxaw di leen jubbanti waaye yii la ko daan wax jub ak neex koo xam ne la muy wax jubut dañ koy génn koo xam ne la muy wax neexut dañ koy génn maanaam laa kii yëpp neexut baatam neexut dañ koy génne ci ñi njàng sëñ Saaliw ñu ko miin nee nañ daana def noonu moom ñu daan nekkat dañ daan jàng fi moom waaye nee na bu ñu jàng mi ngi leen di seetlu kum ci seetlu muy yàq-yàq yu bari wala baat bi neexul dana fexe ba génn ko du fees nag waaye dana fexe ba génn ko am na ko ne man ni ñu ko daan defee léeg-léeg day jékki-jékki rek soppi loo leen soppi loo leen soppi loo li ñuy jàng wax leen geneen xasida goo xam ne beneen daaj la boo xam ne moom neex yombut ku kii loolu doo ko moom bu ñu ca demee rek waa ji day moom suñ suñu borom defat loolu am na ko fa nekkoon nee na mu daan def lu mel noonu wala mu fexe ba yónni ko wala yooyu daal fexe daal ba kii bu dee sëñ Massa moom danaan bàcc bàccal buñ naan jàng dana yaram boo xam ne ku kiyam kuy yàq-yàq yu bari daana bàcc bàccal tuuti boo jubati ko baax na bokk yoon boo kenn mu génne la bu neexut tam noonu bu ëppee mu génne la kon yooyu du du du ñu war a jaaxaan ci jàng xasida ca kaw lu ñu war a caaxaan xasida bu ñu koy jàng ki koy déglu da ko war a xam waaye noonu ñuy jàng suñu xasida yi fii ki koy déglu du ko xam waaye da koy jëli da koy jëli ndax da koo xamoon ba noppi bu may déglu xasida damay xam ne rek kii fii ne bay sàngam lay lay bëgg a wax nii rek waaye waxu ko ki nga xam ne xamutoon bayit yooyu arab la dégg rek buy déglu du ci xam dara du ci xam dara loolu nag daa jaadu buñ dee jàngi xasiida ki ko musta dégg te man arab bu toogee di déglu day xam li ñuy wax loolu nag di ko wax waxin wu wér mooy tax man nekk waaye bu fekkee ki man arab te xamutoon xasiida gi bu toogee di déglu du xam li ñuy wax waaye kon li ñuy wax wut wérut loolu la war a demee bu dee ci ansaar <coughs> ansaaru diin daaw am na lu wax am na ñu fi doon waxtaan ñu naan alquran jàmbaar ngeen mais ren man nag du ma wax ne jàmbaar ngeen ndax ansaaru diin ay jàngkat lañ bu ñu demee bay jàng xasiida waru ñoo yem ak ñi ci des waru ñoo yem ak ñi ci des ni ñuy jàng xasiida dañ ca war a doon dañ ca a jàngale dañ ca war a jàng ci des a jàngalaaleen ñi ci des ñoom war nañu góorgóorlu ñoom ba seenum njàng moom wér wér wér nag du rek tudd kàddu gi nga tudd ko nañ ko war a tudde rek waaye loo ci yokk lu ci bokkul rek wér a tudd mooy yokk yooyu suñ doon laaj fuñ ko jële yooyu nag mucc ci yombul ku bëgg topp daal ji fi nekk rek doo ci mucc daal ji fi nekk am na ci yooyu ku ko jooyanti mën nañ koo jooyanti ba mën a tolloo ba mën a tolloo wax am na coo xam moom dañ ko war a noonu rek sànni yi mën a jooyanti kon kuy jàng daa war a nga xam ne mën nañ koo jooyanti ba mën a tolloo wax ji ñu jëfandikoo yooyu te topp rek fi ñépp doon jaar ndax boobaa su amaana li jaar mooy kuréel bu ne ci biir murit gi kuréel bu ne bu amee wàllu gum gën a ràññi ko walla ga mu gën a ràññi ko da war a jariñ ñi ci dañuy war a jariñ ñi ko yëkkati euh, des ci wàllu googu ba dañ caa war a wane misaal ba ñu ci des mën caa roy kuréel bu mat doon ci ci murit gi rek noonu la war a boo xam ne ay ay ay fajkat lañ war nañu jëriñ jëriñ gi ci seen paj xam-xam boo xam ne ingénieur lañ war nañu jëriñ murit gi ci seen xam-xam boobu daayira boo xam ne ay jàngkat lañ nag jàngkati lislaam ak arab ñoom itam war nañu jëriñ murit gi ci seen wàllu seen wàllu boobu ne ba yëkkati xasida war nañoo jëriñ murit gi ci ni ñuy yëkkati xasida ci anam gu jub bu baax mu jaar kon war nañoo góorgóorlu ci wàllu googu di ko jàng njàng mu jub tey bañ a topp rek li fi nekkoon leneen luñ war a bàyyi xel ba tey ci yëkkati mooy bañ cee manantu manantu yu ëpp manantu manantu yi mooy yóbbee mooy yóbbee nit ñi de ay xëcc yooyu yëpp ñu mën bokk ci manantu maanaam tuub mooy bëgg a wane sa man-man bëgg wane ci loo xam ne jarul day tax ñu bokk boole ci bokk yooyu itam war nañ ko moytu ci bu ñu yëkkati ay xasida leneen loo xam ne war nañu suñu diggante xasida yi mooy loo ci xam ne taxul koo jóg xaside yi lool ci xam ne nun taxuñ koo jóg ñu cee bañ a xuus ñu cee bañ a xuus li nga xam ne nun noo ko tax a jóg mooy yay jàngale noo ko tax a jóg nit ñi lay jàngale ya nga xam ne ay ñaan la tax nañ koo jóg mën nañ ko jëfandikoo bu tax nañ koo jóg mën nañ ko jëfandikoo bu ñuy ñaanal yonente bi sallallahu alayhi kon yu mel noonu manes na man man daan koy jëfandikoo noonu ndax noonu la jóg yi nga xam ne taxul koo jóg tuddoon nañ ko ci biir mooy yi muy deeyaale yàlla deeyaale yi muy wax ak yàlla yooyu taxul koo jóg yooyu warul ci di xuus warul ci di xuus jàng gi rek jaru ko sakkatumaana di ko jéem a jàng ngi rek jëlu ko sakantuma di ko jéem a nit ñi nag ñu bari ñoom yooyu moo leen moo leen moo leen gën a moo leen gën a moo leen gën a taamu di li ñu xamul dara lañ gën a taamu li ñu li nga xam ne noo ko tax a jóg loolu buñ ci yemee doy na lu sëkk yim bind tamit jàngale yooyu ku ca nekk ya doon ay ñaan ya doon ay ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa doon ay tàgg yonent bi sallallahu alayhi yooyu yëpp ku ci nekk doy na ko sëkk yi nga xam ne mbiri boppam la nag ak yamu doon jaare ak ak noom la yooyu nun taxul mu jóg moo tax jarul di jarul di ñeme yooyu jarul di xuus jàng ko rek jaru ko chaque alxuraan di ko jéem a ndax ku ko jéem a man nga koo wax loo lu mokk man nga koo wax loo lu mokk taxu ko jóg yi nga xam ne yaa ko tax a jóg moom danga ko war a firi ndax dana ko waxee waxee nu wu déggoo nga mën a xam yow ndax yow lay waxal waaye waxut ak yow yàlla lay waxal sa yoon newut boo ci mu doon xeex ak noonu itam noonu dama foog naa sëñ Saliou wala daal am na ci mag ñi ku ñuy wax ne li mu daan wax ci xasida yooyu ku koy jàng ndax du moom sax moo ko ndax du sëñ bépp moo ko waxoon sax daa mos a fekk ku jàng xasida yu jëm ci yu doon xeex ak noonu xam nga xam nañ ne am na xasida yoo xam da ko suul am na lu bari lu mu bind ba mu suul ko am na ñu wax da ko sànni ci géej ndax daa am lu ko taxoon a jóg rek comme ca noppee noppi na ca loolu taxuñ ko woon jóg moo tax musóor yi yi mu ko ci géej am nag yu rëcc ba agsi ci noonu waaye noonu moo war a xàmmee yu rëcc agsi ci noonu xam daa rëcc agsi ci waaye taxuñ koo jóg ku mas di jàng yu mel noonu mu gaaw noppi lool ne li li loolu de mu ngi mel na rek ku fekk am mag mu yor fetalam sox ko mag mu yor fetalam sox ko mag bu yoree fetalam sox ko moom dana xam fan la koy jëfandikoo kañ la koy jëfandikoo nan la jëfandikoo dana ko xam ak gone bu nag dem jël fetal moom di ko fooyee di ko fooyee noonu la nguróo ne ñi nga xam dañuy fekk xasida yi mu doon xeex ak noon yi di ko jëfandikoo ñoom di ko jàng kon yooyu jërut di jàng yi muy déyaaleeg yàlla itam jëru ko sàkkal tuwaa di ko firi kii moo ci raw xam ne na xaw ci télévision bu ñoo xam ne ñoom ñëpp kenn xamuñ ci diine moom arab xamuñ ko xamuñ diine ba noppi ñuy waxtaan waxtaan yoo xam ne ñu ngi ko jël ci xaatimatul munaajaat moom la ñuy leeral xaatimatul munaajaat la ñuy ci télévision te ñoom kenn lu ci yoon kenn. lu ci yoon kenn bañ ko jéem a firi rawat na ñoom jàng diine ñoom lenn ñoom far jànguñu arab jànguñu diine naan dañuy firi xaj ma tu mën a jàng mel noonu lu ñu war a moytu njëkk cee jot hmm, dañ cee njëkk a jot ndax fi nun la fi nun la feeñ kon nag ci njëkk a jot waaye eh, sunu warugar la nag ñu jot li ko itam ñi ci des sunu warugar la ñu jot ko ñi ci des jot gi nag balaa am njariñ yéen waxoon day jiitu yéen waxoon day jiitu mooy dañuy dañuy settantal ba xam ne yii la ñu wéral loola itam door ko mën a jot boo jotalee lu ci bokkut wala nga jotti lu wérut boobaa da ngay yàq waaye doo defar kon jotali farata ndax sëñ bi li mel ni ko rek ñim nekkaloon waaye àddina sépp jullit ñëpp la ko andil ñim nekkaloon nag fi ñoom la feeñe kon ñoo cee njëkk a jot waaye buñ ca njëkkee jot rek ñu xam ne du luñ moom ñoom rek dañ ko war a àddina sépp ndax njariñul àddina sépp la yooyu laa bëggoon ki ci ngeen war a jëflante ak xasida yi dama xam du ngeen waxtaan yi waaye bu fekkee euh, dana am ku ñu ci mën a mottali ñu ci mën a jubbanti ñu ci mën a gën a leeral walla ñu ci bëgg a leeral itam bu dee yooyu waa jàll nañ ko man danoo jàll ci yooyu kon xam naa maa ngi jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu